bu ñu neexee taxaw fièrement ne am nañ bilan yéen ñi fi nekk tey kenn fayal fi kenn dem ngeen fu nekk. merci. jóge nañ fi merci Caravane jóge nañ fi merci Caravane jaar Marinas dox ba Maristes. ñu daan maris génne montagne woo yaraax yëpp te xale yi kenn dugg si oto loolu la dafa daw yaram donc vraiment moo tax maa ngi ñaan vraiment solo na maa ngi tàccu xale yi bu baax a baax a baax a baax léegi nag lu ñu waroon def def nañ ko léegi lenn moo des ñu fagaru dimanche incha allah ñu ñëpp ñu teel a jóg dem voté wan nit ñi ko leen mën si terrain leen mën si yëngu ñaareel. ndaxte boo leen rombee seen fii di day dawul dañoo ragal nekk sa biir commune nekk fi maire te ñemewoo fi ñëw sans accompagnant il faut mu importer jël ay kàddu fii bi loolu du ma si je pense nag que. waa ANPR ils ont compris comprendre nañu comprendre nañu tey wóoruñu seen député wóoruñu seen maire bu nga xamante ne day dundee commune ANPR déedéet dañoo war a fal bu nga xamante ne maanaam commune ANPR moom lay jël di ko yóbbu ci kanam di ko suuxal di fi indi ay projet di fi indi ay liggéey indi fi ay formation loolu la ñuy développé dëkk defar environnement bi. defal géej daal di nii mooy géej bu gën a sant si moom yi dafa naa moo nekkoon géej bu gën a rafet yi te fee bii nii mooy suñu lépp suñu patrimoine la waaye tey ñëpp ko bàyyi en commençant ba di nga xamante ne ñoom ñoo géré commune bi tollootuñu ci fan ñi nga xamante ne tamit amuñu benn compétence compétence mooy mën-mën mooy xam-xam soit da ngay am mën-mën bi wala nga am diplôme bi wala nga am expérience bi mais boo ko amul da ngay kare ñii doo ko def ndax dañoo kaay ndaxte tey boo xoolee liste doon tey yëpp xaw ma def soog ngeen pour xool sax yeneen liste yi xam nga lii bindal dañ lay bindal wala ñu bindal le consultant ay dóor la boo amee say diplôme da ngay bind ingénieur télécom wala nga bind comptable wala nga bind leneen. tey bu neexee def ñëw centre doomu Yaraax bii def fi un mois de formation bu la neexee génne consultant nga kenn mënu si dara wala génne entrepreneur nga dem tijji sa salon da ngay entreprendre donc entrepreneur consultant yooyu yëpp li ngay def du noonu amuñu mënuñu wax leen ni ñuy génnee seen ay diplôme nañu génnee seen mën-mën nañu génnee seen xam-xam ils sont calés waaye foog ni tey moom nit ñi comprendre nañu. comprendre nañ bu baax a baax en tout cas lii bu leen ko jàppee guerre bi benn combat la rek bu ñuy nekk di gagné nii instant bi combat wu communication combat wu mobilisation combat d' organisation la moom ñu nekk di bëri di xeex bu lii weesoo incha lii échauffement la rek publicité la bëgg nañ tey suñuy tànk fu mu yeggoon biir commune de mu yegg fa parce que man xam nga la mooy sama délai lu ma bëgg bëgg a bu ñu taxawee tey rek dañoo bëgg mairie bi.

di gën a di gën a ñaaxaat population bi di gën a ñaaxaat suñuy militants yi ak suñuy responsable yi donc ci xamee bu baax bulletin bi ñu moo ci aussi balaa ñuy jaawale suñuy bulletin bi nii joxe ngeen ko vingt un jours te yàlla baax na def nañ vingt un jours de campagne def nañu une campagne très bien réussie sonnoo leen taayoo wax dëgg fa yàlla donc comme ma ko waxee incha allah dimanche moo si des moo kàddu gi sans pour autant aussi remercier bi ndax tey milieu bu mën a nekk ñëpp xam na ne boo dëggee ci wetu centre bu nga xamante ne ñu koy jëm ay si si si biir am na ay dëj yu am si biir dëkk bi ñu ngi siy jégalu si jóg baax a baax a baax waaye. dañuy comprendre rek te dëkk bi rek moo tax jóg te lii faaw ñu jaar si bu ñu bëggee defar dëkk bi faaw ñu communiquer ak nit ñi faaw ñu waxtaan ak nit ñi donc loolu rek moo tax jóg en tout cas vraiment jàpp leen ni yéen doomu tey yéen a nekk ci kaw yéen waa coalition Jubbanti yéen a mën yéen a ëpp doole waaw vraiment jërëjëf Fatou